Wat doe je? Vuf leden. Vuf, vuf, vuf. ñëw fii di daan doole. waaw di daan doole di ut lu ñu yóbbul paa beeg meer bi trois heures vingt neuf jëm Arlem Arlem la ñu jëm jëli Fallou jël jëli Njool hi guys hi everyone sama guy bi gay naa leen tey dañuy def vol voyage New York dem ba Ohio jël car daw 9 h de temps de vol. yow you go to the Ohio. bon ñaari boy yéen gis ni yëpp Fall lañ tudd ñun ñoy and ci car bi légui dañuy dem di jëli njool. <laughs> Da am roman ba la bis bi xoolal mu ñëw mën a. boy bu nga saaga boy. kon sama gars yi suivre leen bi ngeen wax ma seen xalaat ci commentaire boo leen seetaanee vlog bi ba pare bu leen fàtte yéen g war si sama promo code 21F la saa ba di ngeen bonus 1 million nee bi naa ko def si commentaire yi xaaruñu woon Ndiol xool fan la nekk balaa mu ñu tardeel soo génn ñu dem Ndiol <laughs> gars yi ñoo ci saaga yi quoi après ñu wàcc xool suñu oto ba xam amul benn problème wut luñ lekk xaaraale Ndiol mu génn yow eh depuis sàng ñu taxaw di la xaar nga ñuy tardeel. daam lu jël booy. nga ne da ngay e sangu set loo doon defee sangu set. waaye fàlle li ba wax eh. xaar nga ñuy yab lu naan ay da ngay sangu set. waaw man booy egsi naa nag booy wax ji jeex na garaaw. mais la ñuy dem ah. direct fa lañ jëm. bëgg ngeen saaga. waaw fa lañ jëm. mais ñu ngi ñëw rek ngeen ah. su góor yàlla amul valise amul dara ñu dem vite fait ñëwaat 9 heures de temps you know what I'm saying. waaw affaire daa xaw a lëndëm njool lañ doon xaar ñu ngi si ginnaaw moo dàq ci àdduna nit kii nii yow xaar nañ la une heure de temps. mais ginnaaw nee na waaw waaw. New York ba Ohio amul taxaw. waaw waaw. Oh, wow. après ñu ambiance bi jël lekk lekk jaar station bi jënd essence omelette. You go to Ohio, Ohio. You go, to Ohio. Ohio, Ohio. You wanna come, come, come meet the guys? <laughs> Yeah, You come right now. You go. Now, right now. Why? Change my life. You change your life? Fal, fal, dabal oto bi waay. côté bi ñu gis daw daw daw lu bëri sax ñëpp sonn commencé sonn nelaw xam nga après yeewu ambiance tuuti ñi si ginnaaw moom ñu ngi nelaw ñoom Ndiol après Ndiol mooy waaj. pare pour dawal. barki Serigne Diouf Mbaye. bato bi foofu lay def foofu foofu foofu foofu yéen a ngi gis. day jékkee ah. moo tax ma wàññi di dawalee nii nga dawalee nii dara sama xel muy dawal boppam accéléré wul dafa lépp ci kii yaa ngi mooy dawal boppam neen daa sonn daa dëmmin daw na ba sonn njool mooy ñëw dawal njool affaire ñu wàcc tuur ndox booy noppalu tuuti xam xob bàyyi njool déliré <laughs> mooy fii fan la nii. dëgg àll xam. la xamoo. après noppalu tuuti njool jël oto bi ñu dawal ñu gis benn kër. boo xamante ne dañ koo def si oto di ko yóbbu di jamais fii après ñu dawaat tuuti sonnaat. wàccaat ci station bi jëndaat essence parce que suñu essence dafa jeex. booy sonn au <laughs> non. dañuy laaj dañuy jëlal essence wala. ba sa essence jeex kon xam nga ni fi ñu jëm sori na xolo booy ambiance. ambiance tuuti dindi stress après dugg si oto bi njool jëf kuuram jàng ku nekk nekk si li nga war a nekk après ñu avancé waat dawalat yon bi taw sibet ñu gis ben auto tamit bu yapp pisin, pisin pisin la yapp non di ko yobbu di dem après man aussi il est temps tamit ma jël volant bi dawal ko nii réewal waaw volant conduire après ma dawal dawal dawal dawal man xaama ambiance tuuti. taw nañ taw ba sonn plus de 9 heures de temps après ñuy yegg si jàmm. arrivé à Ohio dawal nañ 9 heures de temps instant yii nii doog a yegg si nii xoolal booy bee Fallou. yow gars après ñu dugg teg suñu daal simbeeku gars yi accueillir ñu fekk fi ay gars yu baax vraiment ñu defaral ñu ton bu neex ñu lekk après ñu toog waxtaan gis ngeen ton bi waxtaan lañu fi indi yoon wi lijjanti xaama njool som robaay bi njool moom lañ doon xaar mooy wala sangu set <laughs> booy booy bàyyi ngeen booy fàll waaw sangu set ñëpp koy def di njool ñëpp sangu set di ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp set ñëpp fàllu xëcc mburoog ton bi café Touba bi ñu lekk xama ba suur après ñu génn mën a xaama dem gis Moussa fait des vidéos mën nga koy gis di ko xàmmee c'est un ami de longue date Amérique rek a mën ni Amérique rek Ohio laa ñëw te su ma ñëwee xam nga de foog ma foog ma jaar foog ma woo la gis la waaw Moussa taxa taxa waañi waañi li may vidéo nii YouTube la jëm de sax ma lool. booy gàllankoor mais mais bi YouTube la jëm xam nga am vlog waa na naa la booy. maanaam maanaam yoonu yoonu New York ba fii nii lépp dama ko filmé après damay takkale lépp dama ko YouTube. looy teg nii. barki yàlla faral la ngi nii Moussa Ferré vidéo. baay maa ngi nii de. Eh, Moussa yaa ngi nos waaye baay ma waay ah, léegi nag wax yi nga xamante ne ñu ngi seetaan. waaw waaye di wax rek baay ñu ñaanal ñu gaan. yokk ñu dëkk bi dëkk bi mooy loolu xam ay ndaw leen rek. xam di ñëw fii di daan doole. di daan doole di ut lu ñu yóbbul paa beeg meer bi ah. nañu ñaanal bu baax xewal yi yokk ha no la démé nak ñaanal leen xewal yi yokk ñu ñibisi waati jamo ak salaam mais naka dëgg bi waxa yo way sant rek ay no sé acca musa Fede vidéo après ma gis musa boy génn ku nekk dem séti ki nga wara séti ñu dem xol dëkk bi visiter dëkk bi dem babi som ñu xol suñu talent Hundred We got hundred dollars right now. I bet hundred dollars. Somebody go. Hundred dollars? Yeah.

dañuy doxaan quoi xale bu ñu doon mën a tudd ko. yu seewaat yu seewaat. man kay gis naa ko li nga gis ba siiñ kii gis bu ko ba siiñ ñëpp gis ko siiñ moom laa gis siiñ rek. bu la bu la sa jabar ji jàppee. da ngeen dund da dem Ngor. sangu dem ñibbi loolu ngeen dund yéen kan dama la parce eh, eh, dund ma ko ma nekk yi boy man jëwriñ laa kat ah mais dara jëwriñ jëwriñ ma faal nga tur ma Bamba Ahmadou Bamba kaay ay wuju ngeen kan jàng xas de ok daal faal xamul ne yéen ay wuju ngeen fa la nekk ay wuju wuju lan waa taxaw man façon wuju taxaw lan façon wuju oh, comprendre nga waaw kaay ma daj. du waxtaanu fii tey taxalee nii ma daj. man nga bëgg ma daajal la. أحببت رايا من رايا أحببت رايا non xam naa mais bu mu daajee air boobu. mais raaya c'est toi raaya. mais loolu pour neexal kese la. mais raaya. loolu ku neex kese bëb tuura bala la ne ma la ne wala ne waaw wan ka daa se loola me likal kaale warja sa di cey mënu woon ñaax ñu bañ a daaj quoi ngeen xam ne ñun jaar nañ si kuréel yi li après di jaar fii fii gars yi basket xaw ma ban genre jeu la ñuy def nii. yow daa neex moom. guys so so crazy barki yàlla boy doxante bi ay daan maay daan bi doxante bi lii damaa xamul ba si saa dëkk la lii kii kii wante nii lan la yow ñëwal yaa waay mbét naka mu gaan yaa suñ la suñ la fenul lekk nañ trop après ñu ñëw fii tëdd xama noppalu soom génnaat dugg si oto bi xaw a bandi bandi lu suñu façon bu après ma dem tëdd bàyyi fi booy yeewaat booy bi jàpp oto bi di xiiral lu mel xeme li nga daw bëri li nga daw bëri na Damn, Serena! You kill me now, you kill me! Serena, mi ngi daw yàlla ak yàlla laa la wax. Yàlla ak yàlla Serena yaa ngi koy daw. Serena. Tey rek mu rey la. Tey rek mu rey la. Kii kay, eh eh. Ñoon ñoon nogot ngeen faalu de. léegi bëgg a rey waxoon Seexuna Seexuna am na ko ngeen ñu de 87 te yow leer na ma ne xam naa passé nga 87 ki li muy dox ki jëlu na de ki ay sa nangam la waaw man 87 la ilaha illallah 87 laa doon daw oto yi du bu nit de lu xotti de waaw après def yëfu boy town tuuti mënul ñaax instant bi nag sonn nañ pour préparer dem ñibbi Fallou naka ada sama Kalando bi rek la mën a njëkkanteel. yow xoolal garab bi sëkk. yaa fi wax intake bi nga def ko intake laa ci dem. bi sa bi kon. bi lay indi. oh son. eh gën a bi def. Sali sama Kalando bi rek la mën a Apa après ñu cebu ceebu ginaar. sofa yi si si lii Eh matal ay eh, matal. ndeysaan waa Ohio ñooy bye bye. ñool nee na fi lañ Bye man bu yang ñibbi avion laay jël. beneen yoon mooy daal man kay di toog du jël temps moom. ku ma ko waxati. ku ma waxati voyage oto bu ndaw. avion rek. avion rek. dafa yaa dafa yaa dafa yaa dafa yaa. bon sama gars après di jëlaat yoon bi pour demaat. New York suñ dëkk parce que temps amul mënuñ fee yàgg fa ñu dem go to work make money. sama gars yi da ngeen may wax noo leen gisee vlog bi xam nga sànni leen ko si commentaire yi aimé leen. comme comme leen vlog bi leen neexee mën naa ñu def à chaque fois vlog yaa ngi